waxtaan wi xumb lool mel ni sax ñuy xuloo la ñuy waxtaane nag di rek yëkkati bi ñu leen yëkkati ñu tuddee ko nag ab jaay doole ñoo ngi ci marché Petersen fii nag ku nekk foo mën lal sam jaay rekk def nga ko ba sax waral yenn saay kenn du am fu mu jaar moo ne de ña ngay ñaawlu bu baax bi bile déguerpissement man maa ngi doon jaay ay robb ay masque affaire yooyu noonu ah metti rek mais nag ñu rek waaw ah, waaye metti na trop nag wax dëgg yàlla metti na ñun trop xanaa loolu rek metti loolu ndax ay ndaw la ñu nangoo liggéey ay ndaw yu gëm suñu bopp suñu bagage dañ koo denc liggéeyuñu ñu ngi xëy taqale xëy dina si mbedd yi taqale dañuy yàq suñu bagage kay xam nga ne koo xam ne guddi nga ñëw taxawal say ndiraan taxawal say lépp ak say force de l'ordre mu war a ay bagage du ko rawale la muy ñàkk mooy ëpp li muy yóbbu. bu fekkee ni bu njëkk ci wàllum occupation anarchique la ñu leen daan yëkkatee tey nag am rek leneen lu ko waral. waaw nee nañ dañuy defar perte bi ñu ànd nañ ci perte bi ñu defar ndax réew mi ànd nañ ci lu baax bañ ñu perte bi am waaye nañ ñu dimbali ñu am fu ñu liggéey. ah ay dogal la mu ñu sañoon jóg waaye muy xamuñu ban dogal lañ ci jël parce que xam naa liggéeyu état la ci état la moom lu mu soxla wax dëgg yàlla bu ñu sukkandikoo ci njiitu marché bi jotuñu benn préavis préfet bu Dakar man maa ko woo ba ma ñuy àjjuma 16 heures la ma woo téléphone moom préfet na ma mbaa wax nga sa booy jël seen bagage mu ne ko ah déet préfet loolu moom nu mu demee noonu mu ne ma woo daam fi ngeen nekk waru leen faa nekk. lu ëpp ñaari junniy nit ñooy daan seen doole ci marché Petersen ak boobu lim nag occupation anarchique ba di gën di yokku loolee sax waral ba ñu yëkkati leen ndax rek liggéey BRT bi mu di nag lu jaaykat yi du naqarlu bu baax te nag di sàkku rek ñu saafara seen jafe-jafe ci ne mu gën a gaawee